mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu bi nga xam ne moo di Bawal TV samedi le 26 mars ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journalu sunu fekkati fa yafi champ solo fils de liru fëgale bu ngor rendez-vous samedi waaye ba tey journalu sunu lamb xëy jàll ci yeneen journée samedi ak dimanche ci Adrien Senghor miss million 500 mille francs CFA la ñu teg moo nga xam ne nii Mamadou Diema Sène journal bi xëy bel seeni nataal di wax ci combat ba ñu jëm ci seen diggante ñoom ñaar ñaari camp yi ku ci nekk wax nga li nga jàpp la am solo ñu wax li nga xam ne nii moom a di Eumeu Sène ñoom itam wax nañu la ñu bëgg ci boobu le combat waaye ba tey journalu sunu lamb xëy jàll ci beneen affiche di am ci diggante ki nga ne nii moom di Balla bu Diamniadio ak ki nga ne nii moom moo di Thiat Senior foofee nga xam ne nii moom di ca Sébikotane le 2 avril ca ci journée wu ki xam ne nii moom moo di Assane njiital Baol production waaye ki xam ne nii moom moo di Eumeu Sène journal bi xëy xamal ñu ne convoqué nañ ko 16h45 ci arène nationale le 27 mars di Bombardier moom waaye ba ki xam ne nii moom moo ambulance te en solitaire journal bi xëy di ñu xamal ne day teewoon na foofee ci arène nationale moom Assane njiital Baol production war a jëm foofee xam ne nii moom moo ca Sébikotane le 2 avril 2022 journal bi xëy faram fàcceel ñu ko ba mu leer waaye ki xam ne nii moom moo di Boy Dieng journal bi xëy na ñëw moom moo di Tafa Gueye di njiital association des sages journal bi itam xëy na andi ay ci moom Ada Fass Colifay 2 le 26 juin ci atum 2022 journal bee ñu bërale lu ni mel Mbaye Tine Signor ak ki xam ne nii moom di Boy Yëmbal le 17 juillet la journal bi xëy bind waaye ki xam ne nii moom moo di capitaine Aïdara Fessel par ki xam ne nii moom moo di Prési production yéen ñi koy seetaan lamb actualité bu ñu dee fi nga xam ne nii ci nekk yaa ngay xam ne nii la mu xamal ba léegi rek moom kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp la ko dalee Thiès xombal Bambey altu ndangal mag sew Mbaaw Kabaak Laañaar Kër Daama Kër Sayer Jallo Ndul ak Pataar Kër Ibra Yaasin Sambe Ngewel Sambe Kool Dala ba Daaru Xafoor siyaare Sëriñ ba dellu siwaat Kajoor ak Bawal Siin Saalum Fuuta ak Jolof ñëpp actualité lamb Bawal TV nee naa leen lu waay yor ba di ko neexale kalayaate boo ko joxee ki lay dóori coow li du bëri mbokk yi je vous donne rendez-vous le 2 avril foofee nga xam ne nii moom moo di ca Sibi Xutaan ak Assane Ndiaye jiital Baol Production mbokk yi nee naa leen ànd cuuraay ci biir néeg muur du ko très sàlli ñu ngeen doon jàmm